mbokk ñuy suivre ci Leewtoo TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey nag ñu ngi ñëwoon fii au niveau du CNG fekk fi promoteurs yi ñu seqoon réunion ak waa CNG bi ci njiital Pape Abdou Fall ak docteur Alioune Sarr président maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay sëñ Babacar. maa yaa ngi am jàmm. waaw ñu ngi dolli sant yàlla. di la ndokkale si gàmmu gi ñu jógee bésu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaw ndokk sa wàll euh, donc euh, lépp lu ñu fa ñaan rek yàlla nañ ko yàlla defal yiw ñu bokk ñun ñëpp daal di jaale Bombardier suñu frère donc euh, qui nous a quitté très tôt waaw que Firdawsi nekk këram ñaanal ko loolu yàlla euh, masawu ko masawu njabootam ñaan yàlla teg loxo ci njabootam. amin yàlla na yàlla nangu ñaan Pape Dia nekkoon nit ku nga xam ne exemple la ci làmb yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljana mais tey lan moo nekkoon bitu réunion bi fii yéen ak euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yore làmb ji. waa mais Jax tey mooy porte parole du jour ah yaakaar naa ni loolu war na ci mun tontu bu amee lu des ñu daal di ñu daal di koy mottali incha allah. Jax borom lit simple bi maa ngi lay bëggee. ñu ngi lay fay bu baax a baax. mbaa yaa ngi am jàmm. ñu sant yàlla leen sant. réunion bi mën nga ci dikkaat yan point ngeen doon waxtaanee ak ci lu ngeen déggoo wala dafa am ci lu ngeen déggoowul. waaw mooy point yi dugaloon rek. point yi ñu dugaloon la keroog ñu tontu woon ñu ñu demandé waat rencontre bureau bi. ñu ñëwati tey bon bi ñu tey aussi la discuter nañ xuus nañ ci lu sori. donc euh, point bi nga xam ne dafa concerner euh, augmentation des combats yi. boobu dafa nekk coin boo xam ne dafay am ay répercussions. ci pàcc yu bari ci règlement bi donc mu laaj ñu ñu gën ci waxtaanat daal donc normalement dinañu amaat benn rendez-vous ak euh, commission commission des arbitres parce que ñoom ñu moom la impliqué directement ensuite après nag comité élargi bi dajewaat donc ay daje lay doon daal waaw parce que parce que dafay laaj ay changement ci règlement xam nga boo bëggee jógee ne combat vingt vingt cinq minutes la nga bëgg ko wàññi dix minutes déjà eh, dafay impacte si lu bari donc loolu moo tax ñu ne nañ dajeek arbitre yi d'abord euh, bu ñu waxtaanee ak ba pare ñoom ñu restituer euh, CNG après ñun ñu ñëwaat ñu toogaat ci set naka la ñuy naka la ñuy defee loolu. léegi am na loo xam ne sénégalais moom dañ koy faral parce que defe naa mooy li gën la ëpp lu ñuy wax mooy seen diggante digganteeg stade bi ñu war a tëj arène nationale bi ñu war a dem te ñu foofu location bi dafa seer est ce que yooyu waxtaan ngeen ci. non affaire arène bi moom c' est définitif loolu moom jarul ñu ci coow lu bari Iba Mar Diop moom jeex na lu jeex jeex na le 12 lay jeex le 31 la waroon jeex. ministre bi mayaat ñu ba le 12 parce que dañuy def drapeau drapeau mais Matar Ba. yéen ña koy def. ñun promoteur de frappe ñooy def lutte simple avec une mise de 3 millions pour sargal Matar Ba. ndax loolu dana neex daa mel ni di 3 millions. 3 millions incha allah ministre bi dana pousse laat la 30 bi ba le 12 janvier. ba waaye fa du ko passé. ndax à partir du 15 suñu mbokku alpulaar yi ñooy ñëw stade. sur seen ziara générale. donc jeex na lu jeex jeex na. arène bi rek fi sus actuellement. arène bi fa la ñu jëm bu soobee yàlla. prix bi ci arène bi yéen waxtaan ngeen ci wala am na lu ñu ci wàññi wala ñu ci dara. non prix bi waxuñu dañ ne ñoom sax dañ ko war a yokk loolu la waxoon. ndax 1 yi. waaw mais frais bi dafa bari mais waxtaanoon nañ ci ak ministre bi ba daanaka trouvé woon nañ consensus ñun daal suñu biir waaw. mais lan moo indi intention delloo Matar ba njukkal le 12 janvier boobu ba ngeen tegal ko 3 millions maanaam lan la def ak lu ngeen jàpp ci moom ba war ngeen ba ngeen koy delloo njukkal. Matar ba mooy ministre des sports moo tabax arène nationale saa ñu amee soxla dem ci moom mu faju li mu def bari na donc kooku moom tegal ko 3 millions sax dafa tuuti ci man 10 millions lañ ko doon tegal wala 20 waaw. 10 wala 20 <laughs> mais précis parce que yow it yaay yaa ubbi mais yaay tëj. Fallou Ndiaye ngi borom la premier décembre Maama Lamine Jokkeel Idaali ñu ngi moom it war a ñëw la kañ ah le 15 ci diggante kan ak kan Aada Boy Bawol ak Sall Bambey Mor Mbaye tamit ngéwél gi wala taxawal goo yow. Prince tamit ñu ngi ko doon dégg ci diggante Yékini Junior Sa Thiès moom ku ne xam na li mu joxe Papa Sow Sitta <laughs> loolu moom kenn laajteetu ko mais président li Jax wax loo ci mën a waaw d'emblée c'est ça euh, li mu la wax rek moo ci nekk remercier encore CNG ci seen disponibilité parce que boo xoolee tey mooy suñu ñetteelu ndaje mësta am ci diggante promoteur ak CNG mi lépp rek c'est pour apporter une pierre à l'édifice comme ni ko tubaab bi di waxee donc seet nan la ñu gën a mën a yokkee làmb diminuer temps de combat bi yokk ko ci nombre de combat bi parce que arène nationale bi ñu jëm dafa am lu mu laaj kon. ñu ngi waxtaan ci loolu donc ay perspectives la commission arbitrale war nañu dajawaat ak ñoom bu ñu fa paree dem ci commission réglement et discipline donc gën ko performer ba ñun ñu teg dara ci loxoy amateurs yi teg loxo ci euh, loxo teg dara ci loxoy askan wi donc ñu ñaan yàlla rek vraiment esprit d'ouverture bi habité bi ñu habité habité CNG mu daal di continuer daal seen làmb gañe ci léegi nag Bon, euh, qu'on ne mette pas les charrues avant les bœufs. Hein? Donc, euh, je pense que l'idée, elle est là. Toutes les parties sont ouvertes. Donc, maintenant, chaque partie va app apporter ses idées. Nous devons travailler, donc, xool une synthèse dans koy teg Mais, li ñu ce que nous voulons, c'est appliquer. Ce su fekkee loolu amul tamit nañ ñaan yàlla rek de toutes les façons kenn du loqati lañ boo xam ni ñoragul waaw nañ bàyyi ba ci kanam rek. léegi tam am na fam dama fay ñëw buñ jógee ci loolu parce que ay promoteur ngeen di ay bayeeru làmb ji parce que damay faral di wax ne su dul yéen mbër yi du ñu bëree tey làmb ji am benn zone bu mu toll waxaale komba juboo combat ba yàqu fu mbër mi fay nañ ko lii lan moo dal promoteur dañu amatul xaalis wala dañoo déggutul ak mbër yi wala lu xew. promoteur yi dara dalu leen ñu ngi sant yàlla na kañ. li fi nekk moom mooy que ni mbër yi ñooy aspirer plus de ce qui est disponible et loolu dañ leen koy nangul tey bu fi ay milliards nekkoon ñun promoteur attan nañu ko fay ay mbër parce que yàgg nañu ko fay kon il faut que rek ñu adapté wu ci conjoncture bi bëgg nañu leen ko fay mais bañuñu ko mais mënoo fay loo xam ni yoruloo ko mooy benn ñaar boo xoolee depuis un certain temps lamb yu mag yi fi mujj am yëpp am na ay jafe-jafe paiement est-ce que dañu war a continuer ci jafe-jafe paiement yooyu wala ñu seet li nga xam ne vraiment nee na kët njëgu Bambey tout te teew ñu dem mais iñaanuñu soxoruñu te bu ñu sañoon mbër mérité na lu ne làmb jar na lu ne mais nag sponsor yi ça fait défaut neexul aussi waxaale ak mas sa moroomu nawle ak gor heure fay ko jot nga nekk ci ginnaaw di traîner les pieds loolu wàllu jullit daal léegi yow damay ñëw ci loo xam ne nii yow lañ ci njëkk a dégg muy mbirum Ama Baldé ak tafaatin ñu dem bañ ne kaay leen ñu toog jël avance dernier moment mu yàqu lan nga yaakaar moo yàq combat ba parce que dañu mujj tamit euh, waaw mbir daal xaw a jaaxal nit ñi. sant yàlla rek doyloo yàlla tax xam ni looloo gën ci man maa ngi ciy sant yàlla bu wér. te da nga waxoon foofu tamit ne amoo plan B pour Ama Baldé ak Tapha bu mu amoon plan bee nga déggaat ci Ama Baldé ak non dama xëy dégg tey ñu ne am na promoteurs yu ñaari promoteurs yoo xam ñu ngi proposé Ama Baldé kii ne ñeneen kii 100 millions kii 90 millions kooku Pa Abdou Fall la wala Fallou la wala Jax la wala Prince la wala kan la. ki mu doon yàlla na leen yàlla jubóole.